لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة kuréel gi lëkkale ñi bàyyeekoo ci daara Cheikh Ahmed Sakhir Lo di daaray Koki ngir waajal nag ndaje mu mag mi ñuy amal at mu jot ci daara ji te ndajeem ren mi di ñeent fukkeel yoon bi ak benn ñu jàpp ko le 27 décembre 2020 ca Koki ngir waajal ndaje moom nag danañ amal ay plateau ngir waxtaane fa thème bu am solo muy sukkandiku ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mën a saytu lépp luy urgence ak crise ci xeeti mbas yu mel ni Covid 19. bàkk wi nag di ay alxuraanul karim boobu suñ borom di wax ne yéen jullit yi jël leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy seen royukaay bi gën. thème boobu nag danañ ko yaatal ci ay dimension ak ay sous-thèmes yu fasantikoo ba ca jiitu muy dimension social économique. ñu jël misaal ci waqf bi mu nekk solution ngir moom sa bopp ci wàllum finance ñu jàpp ko kañ le dimanche 6 décembre 2020 à 16h maanaam bu ñeenti waxtu jotee ñu koy def bokk na ci. docteur Moustapha Wayal nekk formateur bu CRFP bu Rufisque nekk itam responsable bu Waqf bu daaray Kokki ak monsieur Serigne Mboup opérateur économique nekk président chambre de commerce bu Kaolack ak monsieur Moubarak Lo nekk ingénieur statisticien économiste nekk itam directeur bureau prospective économique bu primature animateur bi di monsieur Biram Pouy deuxième dimension bi di dimension sanitaire ñu war fa waxtaan ak lu jëm ci wàllum fegu ak naka la ko lislaam santaane ñu war ko jàpp kañ dimanche le 6 décembre 2020 bu 11 jotee ñi koy def di professeur Seynabou Lo nekk ab jàngalekat ci wàllum bactériologie Berger bu Saint-Louis ak docteur Malick Touré ca Turquie ki koy animé di Mouhamadou Lamine Gueye di leen xamal nan ne plateau boobu ñu ngi ko war a def ak vidéo conférence ñetteelu dimension bi di dimension éducative ñu war fa waxtaane nag njariñ yi nga xam ne nii xarale yu bees yi am nañ ko ci biir njàng ak njàngale jël misaal éducation à distance ña koy def di professeur sàmba Gueye nekk bindkat ak jàngalekat ak Ahmadou Makhtar Lo ki koy présenté nekk Cheikh Niang di leen yëgal nag ne plateau yu am solo yooyu mën ngeen koo topp ci YouTube Touba Vision ak Daaray Koki TV ak page Facebook officielle bu Daaray Koki mën ngeen koo am itam ci www.daaraykoki.org. Sadaqallahul Azim.